L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Guinée-Conakry. Le leader de l'UFDG, la principale force politique, le Dalen Diallo, était attendu ce lundi 13 juin à la Cour de répression des délits économiques et financiers CRIEF. Il est soupçonné d'avoir vendu la compagnie nationale aérienne Air Guinée à un très bas prix et sans être enrichi. C'est Dalen Diallo, qui séjourne hors de la Guinée depuis mars dernier, était au moment des faits le ministre des Transports de 1994 à 2004 sous la présidence de Lansana Conté. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué les populations de Seitanga près de la frontière avec le Niger dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 juin, ressemblant fort à des représailles et qui fait suite à l'attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune. Euh, c'était le jeudi dernier, 9 juin, qu'un bilan officiel n'est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts. Des unités d'intervention ont été déployées sur la zone selon le porte-parole du gouvernement. Et beaucoup sur le vol de l'actualité internationale en France. Les Français étaient appelés euh, dimanche à voter pour élire leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. La gauche et la coalition présidentielle sont au coude à coude devant le Rassemblement national et la coalition de droite. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, l'alliance macroniste a remporté 25,75% des voix et la NUP, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, 25,66%, ensemble disposant de 21 442 voix d'avance. D'après cette même source, les deux parties en tête sont suivis du Rassemblement national RN qui a obtenu

yemook fukki fan ak ñett ci weerub juin ñu ngi ko doon xaar ca cour de répression des délits économiques et financiers ñu koy wax CRIEF ndax moom de dañ ko wax ne dafa daal di jël la nga xam ne mooy compagnie nationale Air Guinée mu daal di ko jaay euh, ci njëg boo xam ne njëg bu yomb la te bu mu ko jaayee ba noppi nag euh, xaalis boobee demul ca nguur ga waaye nag da ko def ca poosam ñu jàpp ne nag Cellou Dalein Diallo mi nga xam ne jamono yi nekkul ca Guinée ndax ci weerub mars ba léegi la jóge ca réew ma Euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy xaarandi euh, ngir mu daal di ñëw wuyu waaye nag ñu fàttali nag kookee di Cellou Dalein Diallo moo nekkoon jamono yooyu ñu ko tuumalee ne moo def ni ni mel moo nekkoon ministre des transports bu réewum Guinée ci atum 1996 ba 2004 jamono joojee nga xam ne Lansana Conté moo nekkoon njiitub réewum Guinée yi <laughs> jóge ne dem fële ca Burkina Faso ay nit ñu yore seen ngandaay daal di song ña nga xam ne uh, ñooy askan ba dëkkee ca dëkk bu ñuy wax Seytanga nekk ca wetu frontière ak Niger ñoom nag ñu nga uh, song bërëb boobee ci guddi guddi samedi fukki fan ak benn uh, jàpp dimanche fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2022 jàpp nañ ne sax cong boobee de dafa xaw a nuroo daal ak ab feyu ndax dañoo gis ne songoon nañu brigade gendarmerie gendarmerie euh, bu euh, dëkk bu commune boobee ci juróom ci armes gi weesu yemoon ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin waaye nag jamono yi daal euh, jàpp nañ ne kenn waxagul ne daal ña fa ñàkk seen bakkan nii lañu toll waaye nag am na ñi xam ne ay ni yëngatu wàllu xabaar wax nañ ne lu tolloo ko fukki yu ëpp fukki nit ñàkk nañ fa seen bakkan jamono yooyee nag unité d'intervention bu armée Burkina bu Burkina Faso dal nañ yóbbu ca bërëb ba ka xam ne ni ni mel moom mooy bu gouvernement bu réewum Burkina Faso. jeexali xibaar bitim réew yi foofee ca France démb dee ci euh, dimanche gi ñu ngi doon amal seen wat ngir tànn di tàmm seen député du tolloog 577 député ñoo fas yéene nekk ca assemblée nationale ña nga xam ne nag ñoo féete ci parti bu gauche euh, ak waa coalition présidentielle ñoom day daame ni daal euh, ñoom jegewante nañu lool ca la jëm nag ca ngañaay ya ñu am jàpp nañ euh, gauche coalition présidentielle daal dina bu rassemblement national et la coalition pour droite résultat yi nga ministère de l'intérieur France daal dina ko alliance macroniste bu euh, Emmanuel Macron coalition bi ñuy di nouvelle union populaire écologiste et socialiste gogé 25 66 pour soo boolee seen euh, mboolem seen li ñu am mu toll ci 21 442 voix euh, ña nga xam ne nag ñooy RN rassemblement national bu Marine Le Pen ñoom na lu euh, voix.